Bravo, mbokki Leewtoo ñu leen di nuyu baax a baax fi ñu leen daan nuyoo tey ñu ngi fii ci Géejawaay Alioune Seye numéro 2 moo fi def li nga xam ne moom moo di open press am war a jàkkaarloog Bour Sine Bour nag boo ko déggee xam nga ne Bawol la tey ma ànd ak Moussa ci caméra bi mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV di leen nuyu waaye di bëggee mboolem ñi xam ne ñoom ñoo ñuy safoo Moussa Fall champion baa ngi nii ànd ak Lac de Guiers numéro 2 ànd ak waa Géejawaay yëpp gis nga ñu ngi nii di daw. Géejawaay yëpp génn yëpp a génn xoolal. de guerre mu ngay moom ñu ngay puusante ñu ngay puusante gis nga yaa ci gis eh. Moussa Fall Alioune Seye 2000 isaan xoolal ma gis nga Thank you. combat mu yàgg ak mu gaaw kan la gën a avantage ñun lépp lañ préparé Alioune Seye 2 boo gaawam bërëg yow boo yéexam bërëg yow waaw loolu wax gu yàqu la jàppale Alioune Seye 2 Alioune sama rakk la sama xarit la sama doom ndey la sama lépp la kooku bu ma ko jàppale ma ko war a jàppale bu ma ko jàppale ma ko war a jàppale parce que sama bés daf ciy mel noo xamante man dootuma ko xàmmee dama naan kii du Alioune Seye dal rek waaw dal bu dalee rek budul waaw wax naa ko léegi léegi waaw. dal déggoo la ko dal waaw bu dalee bu dalee sama xol sedd xam naa yéen a xamul Aliou Seye 2 waaw mais xeex ñu ànd sport de combat il faut xeex bokk ci ñàkk jariñ il faut mu ñam. mu doon combat capital pour Seydou nan ngeen ko yebee. nan lañ ko yebee. waaw xam nga Aliou Seydou bu léegi lay soog a bëre combat ñun nag li ñu am wax ah conseiller ko wax ko ba su lamb ji dal. ñàkk a jar ñu xam ne champion la Aliou Seydou tamit ku ne xam na ni champion la mais ñu mu war a du du ñii quoi mais dimanche dañuy xam dara dimanche. waaw mu mel ni dafa a tardé tuuti. waaw mais yàlla bu ñëwee ndogal da nangu. mais dimanche dañuy xam ne du nekkul ñàkk jariñu moo tax a jug Alioune Seye 2 lam moo waxul dëgg mais dimanche na ñëpp xibi seen biir xool pare nañ ci tous les côtés. loolu nar a indi dimanche. pare nañ ci tous les côtés daal pare na ci tous les côtés yàlla na. pare nañ ci lépp boo xoolee waa ji xam ne pare na lépp waaw pare nañ lépp yàlla baax na yàlla ñu yàlla defal ndam dimanche. tey moom géejawaay génn ci. waaw gis nga waaw moom moom mooy borom géejawaay Alioune Seye 2 mooy borom waay borom rek la ko gars yi di fay nii te gars yi fayaguñ ko day dañuy dañuy dañuy jéem rek mais fayaguñ ko bor bi yàlla ko yàlla defal ndam dimanche. ku xew la day ñëw kon defe naa tey defe naa tey ñun luñ mën ak luñ mënul maa ngi koy woo sànq ne ko sama tànk yi day ndax dañ doon football <laughs> gars yi booy gaañoon ma quoi parce que man buteur la maa ngi ñoom baroog ñoom xam nga nekk ci terrain ak 57 ñoom bi mas a jeexee kenn doxut man rek maa ci dox. mais lii boo gisee lii lii fair play mooy wan ne ñun ñun ñu ngi ci làmb ji defuñu ko sax pression y a pas de pression dañu am ndam bu soobee yàlla dimanche ñëw feeral su ko. barke Mouhamed dañu am ndam bu soobee yàlla Alioune Seye xamul tax ah. dégg nga déglu moo la nit ku baax la nit ku baax la nit ku yëg nit la xeebulu kenn bisam Alioune say amul benn mbër bu dem amul presse du ñëw yow xam ngeen loolu benn bi xol bi leer na fii ma taxawee terrain Maguette daan ma taxawee la ma daanee mbapat jël bu gaaw fii nii. moom moo bëroon final bi defe naa moog Balla du ma ko fàtte mukk kon defe naa am naa ci preuve ci moom su ma waxee war naa war a wax waxuma loo xam ni dama ñëw en tant que ni ñu tiim la ngay wax non non j'en passe pas melu ma noonu ay qualité laa gis ci moom àgguma man àgguma ko fii ci bëri ak keneen ak keneen yàlla nag faa li maa yor mooy def lu ko neex lamb tey nga ñëw ne day gaaw sa lamb yeex lambam yàlla tudd mu day yeex mais kon bu doon tey bu doon ay qualité de bëre champion weesu na fii mais nangu na ko ànd ak booy yi ànd ak ay rakam gunge leen ba tey yàlla indi ko grand combat du ñaan yàlla muy combat bu gën a sedd moog Eumeu Sène junior yàlla may leen ndam gannaaw baatu auzu billaahi mina a rajiim dañuy sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabadoo borom daaru salaam ak gaar mu yàgg fi loolu te di sant sama supporteur yëpp wax dëgg yàlla tey bis bi alaa dame di ñaan ni mu neexee nii rek yàlla na continuer bala neuf yàlla may ñu ndam lu sedd guy ci barke Seydina Mohamed di ziar bépp supporteur Alioune ak fu mu mënti ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla defal la tawfiq ak taysir ci barke Seydina Mohamed di ziar Fouta mi nga xamante ni wax dëgg yàlla seetaanuma ci dara bi combat bi taxawee ak léegi di sant sëñ Mor Fall Kéemaan di sant Mamadou Mata Cissé nga Mam yàlla maa ngi sant ñëpp buur a kees maa ngi koy ziar bu xam nga mais Sophie Ndiaye mi nga xamante ni sunu moment la moom xam moom mooy sunu parrain international national international ñu koy ziar bu baax a baax a baax a baax balaa Lac de Guiers numéro 2 bu ñu ko tuddee tudd guy ji ah tudd ak ak ak tant d'autres ñu ngi fi ñoom ñëpp waa Guédiawaye tey dafa mel ni combat benn toll wala wala bis bi la wala borom bis bi waaw mooy li ma wax sànq rek weñ moom bu dalee si weñ keleng rek la mën a def ndax wax dëgg yàlla ñu ñoo bokk suñu ndey ñoo bokk suñu baay bokk Guédiawaye bi nga xam ne mënuñu ko xar ñaar mënuñu ko séddoo xam nga c'est normal rek kenn bu xewle rek ñëpp teewal ko ndax dërëm bi génnul gaal gi loolu dong la mais du dara waaw ñu ciy sant yàlla bu baax te ne ñu ngi xaacandoo di dóorandoo di ñaan yàlla defal ñu ndam rek ci barke waaw xam ko moo tax ma jël ko xam ko moo tax ma jël ko te ci kàttanu yàlla yàlla dina ma suturaal may ma dam la neuf incha allah. waaw Alioune Seye Baye Fall bi ñu lay nuyu baax di la siyaar. mu ne ñu boo xeexee mu duma la boo bëree mu daan la ndax moom ndaw la te dafa nekk si yoon te yow da yàgg si yoon bi deux questions la am na pour yow benn ngeen pardon waa gaynde gi waaw maa ngi lay ziar waaw loolu ak làmb ñoo baaxoo nit ku nekk boo jëlee avance sa morom c'est normal nga wax li nga gëm wala loo gëmul sax yenn saa nga wax ko mais man loolu concerné wu ma man li ma concerné moom mooy le neuf incha allah man li ma entraîné ak li ma indi loolu moo ma ci yàlla ci kàttanu yàlla yàlla ma yàlla may ndam loolu donc moo ma soxal question mooy nekk deux questions rek la am. Mhm. dama gis ne moom première défaite am. Mhm. Boy Baol moo ko jox. Mhm. yow sa dernière défaite Boy Baol moo la ko jox. ñaari défaite yooyu noonu ngeen am ko mujj ko am moom mu njëkk am yow nga mujj ko am est-ce que combat bi Alioune Seye 2 xam na li ko ci war bu baax a baax a baax a baax. maa xam li ma ci war bu baax a baax ndax ndam rek moo ma ci war leneen leneen ma ci ndam. mooy journaliste yi keneen ak keneen kuy wax na ma wax waxi ndam rek. ndax man aw war waruma am leneen lu dul ndam. ci kàttanu yàlla ndax mooy li may wax rek làmb bu doon tarixa jaamoo naa ko côté bu ne dëgg yàlla sukkal naa ko sukkal naa ko raamal naa ko defal na ko ñu ne làmb moo ma deseel te daf maa war a fay ci kàttanu yàlla ci combat bi la may fayee ci barke Seydina Mohamed Aliou Seydina maa ngi lay nuyu Aliou Seydina maa ngi lay nuyu ah, sama première question mooy dañoo dékk micro amateur yi ñu ne Alioune Seye 2 combat bi ndax dafa xaw a retard ci làmb combat bi moom mooy ah, kiyam sànni tàccoom ci combat bi mooy las quoi que ça soit nga xamante ni euh, mooy loolu quoi muy ñaar ñi muy positif wala négatif nañ bi mooy sa laas. waaw xanaa wax léegi Fatma Dia dama ne la fu ne nii bugguma dégg lu dul victoire. waaw waaw 16 victoire lañ am. bugguma dégg ndax man damaa bokk ci lamba damaa war a continuer sama yoon xam nga ci si kàttan yàlla ci làmb ji lañ koy xamee incha allah li tax ma jël làmb ji man maa xam ndax xam nga di toog doo bëre te xam nga baykat waru gëj tool daal. Mhm. loolu tax ma jël combat bi mais xam waa Sénégal waa àdduna waa làmb ji xam nañ ne combat bi du combat mais ci kattanu yàlla loolu la ñu xam lépp la gëlëm ki maam Serafal damay lekk ba suur nelaw ba doyal yeewu dem entraînement barki maam Serafal raf raf raf laa def nii yenu ma ko combat bi ndax xam ku neex a gunge mooy ki ñeme fa mu jëm pom yi dama ko mën loolu xanaa cat moo mees rek ak li jaam li bëgg ak li yàlla dogal mais barki maam Serafal maa mën a ndaw de loolu ci man maa man kese maa ko wax ñi nga ne mayu ma leen cent franc barki maam Serap ñoo ko wax te lu na faan kenn du ko jeex yéen si si làmb ji ngeen di dund xam nga xam ngeen nu mu demee du ma nekk si sax du développé mais nañ ñaan yàlla la fa ñu cet rek se Seye ngay bëree combat spécial te ñëpp xam na da nga am mbooloo macha allah est-ce que lan ngay wax say supporters bis boo bëree ba pare que ça muy positif wala négatif lan ngay wax supporters. Fatma Dia négatif man positif laay dund fu mu ne nii man fu ne nii man positif laay dund ne nii ba keroog waa sama supporter gis ngeen li leen di wax ñoom ñoo ñoom ñoo jël combat seen bopp li fi am yëpp yëguma tinuma man ñëw rek laa ci am gis am yëpp ñoom ñoo ko def xam di leen ñaanal yàlla may leen wér may leen taw fii ak tay si Seydina Mohamed combat bi dina am xeex combat bi waaw am xeex mën na am xeex mën na am bëre ci kàttan yàlla. lépp la am day am lépp day am lépp lépp la am loolu wax gëmu ko sax. du xeex ci kàttan yàlla keroog keroog li nga xeex ci làmb maa koy def ci kàttan yàlla waaw maay bëre maay xeex maay